Sénégal dañoo ñu si bari dañoo wegul diine yonent bi saa bi mu reñaan jiyee lenn lañ ko jox muy julli yonent bi saa fi la fekk woor fi la fekk aj màkk fi la fekk euh, azaka yii yëpp fi la fi yoon salaam am fekk mais julli lañ ko jox jël dajale téere yëpp def ko muy alxuraan muy ummul kitaab ñu jox ko pour mu àtte ko mais lan moo tax tey da ngay seetaan ay images yu ñaaw yoo xam ne maam mataar Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ni na saytu côté boobu moom it ku baax la maam Matar Gueye wallaay ajim bépp sénégalais waroon na def ñu jël un ñu jël. dix millions sénégalais rek chaque weer ku ne joxel ko téeméer mu nekk cent millions ñu ko ñu euh, euh, euh, cinq cent millions ñu ko ñu ñu ñu ñu ko ñu ko koy ñu koy dellu njukkal. di ko njukkal parce que mel ni maam Matar Gueye dafa baax si réew mi lu leen ñu ko koy wax waaye gis nga bu bu bu nekkuloon si réew mi wallaay lu bari na si am mais da see néew doole parce que sénégalais yi jàppalewuñ ko dañ ko war a jàppale parce que tey ànd sàmm jikko yi li ñuy dox nii. barki ann dañ leen war a dooleel Sénégal bu ne di jël sa ñaq di leen ko jox parce que loolooy tax Sénégal euh, jag xoola tey ñu ne Sénégal mii ngi football nit teg si jaadaam sujoot te sujoot wasjud waqtarib la yàlla wax ku sujoot jege ñu ne Sénégal am na ndam mu mu përiyee def yoo xam ne man sama xol bi dafay metti kon dee leen saytu créé waat leen beneen commission pour saytu si mbir moomu te lépp képp ku ko ku ko def ngénnam jëlee ko nañ parce que kooku jullit àdduna bépp la tooñ li tax tey ñu caricature yoon saa salaam c'est parce que ñun ñoo njëkk a caricature suñu diine tey borom subhaanahu wa taala dafa wa man laax ko bi ma anzalallaahu fa ulaa'ikumul kaafiruun fa ulaa'ikumuz zaalimuun fa ulaa'ikumul faasiquun képp koo xam doo àttewoo ci lu yàlla tënk nee na yéeféer nga yàlla moo ko wax mun a tooñ tooñkan nga te te te te nga loolu leer na Euh, ba tey xam nga nag waxtu wee ñu xaw a tiib te li ñu war a waxtaanee daa bari sëñ bi yow sëñ bi dañuy ñëwaat euh, tey ñu ñëw ba tey match bi nee nga di yaa ngi ñaan waaye doo wax. doo wax euh, gis doo seet sax ndam li yéen ndax yow tey sëñ xaadim nag fajam kon ci lii rek la mën wala tey mënee nga fële boog li nga mën ci faj nga di ñu ko jiima di jëlali coupe bi président euh, euh, euh, Macky Sall woo la fay la xaalis gu bari nag nga fexe nag ñaanal ñu nag coupe bi ñëw fi ndax fi ne gars yi ittee woon nañ loolu sëñ bi. waaw man moom avant tout bëgguma xaalis bi bi ma Macky Sall di fay pour ma def dara defal defal sama askan. ndax maa ngi sant yàlla tey Macky Sall alal googu mu am di ko fay na ko jël def ko si sant bi. na ko jël def ko si napp gi na ko jël def ko si baykat yi ndax li may eh, yàlla di sa wërsëgalee maa ngi si sant yàlla waaye eh, mooy li ma la wax sànq man la ministère de la santé dañ ko yemale si moderne bi mais fekkoon sa santé moderne ak traditionnelle dañ leen ko um, boole boobaa bu mel ni xewee dinañu woote waa moderne laaj leen ñan parce que faj dafa am ay dafa am fajkat am seetkat am ñaankat am sëriñ yaa ngi dégg waaw dama lay wax li indi li indi jafe-jafe bi mooy bu fekkoon président damaa woo jox ma ne ma pour ñaan du ma jël xaalis boobu. yow ci sa bëgg Sénégal moo waral dangaa bëgg Sénégal moo waral lu ne ñu def la ko nga ñëw toog fii tey yow nag ah ci sa xam-xam ndax li nga fi li nga fi mën na faj li sëñ bi mën yëpp macha allah ah war na cee boole nag jëli coupe bi nag ñëw indi ñu ko Sénégal. xam nga ñun yàlla may nañu ñuy seet ndax gis nañ ko fi ah ñi nga xam ne génn nañ ne dañoo war a watu ndax coupe bi ñëw ñi di joxe ay tegtal ah Selbé Ndom sax sama doomi nday génn na <laughs> ma kalaas ko DJ Go Selbé <laughs> maa ko tudd man maa ko tudd génn na sax wax ñëpp génn wax sëñ Xaadim nag moom coupe bi na ci wax nag nan la ñuy def nag ba coupe bi moo nu ñëw Sénégal yaay Selbé dañ koy ñaanal jàmm ak gudd fan uh-huh. ah, di ñaanal ñoom ñëpp rek ndax kenn ku ne sa yéene nga am si réew mi ndax kenn ku ne si ñoom boo sañoon tey coupe bi ñëw mm, ak euh, man sama soxna Aida laa xam <laughs> mooy sama sama sama première te nag naa la wax benn affaire. soxna Aida mu sëriñ kay xam nga moo génne nit ñi nañ watu. bu fekkee ni wàllu man sama soxna Aida. boo miinantee woo leen li taxaw fii ci Sénégal man suma ma randoo ñoom ñëpp moo leen mën. kan la. sama soxna Aida. sa soxna ayda waaw leer nañu ndax ke gis teg nañ ci suñu bët loolu moom dinañ ko seede ci ci fee ba waaye dama ne soxna ayda sëriñ te mu toftaleeg turam bii na sëriñ saaliw tey faj di ñaanalaate di génn ci télé bi di wax ak ne na coupe bu ñu watuwee ba Macky Sall bootoo ay ministre am watu Aliou sa watu coupe bi dina ñëw soxna Aida moom na xam nga ko sëñ bi ah, kon ñoom nañu watu rek <laughs> waaye xam nga soxna Aida moom waaye man de wax na yàlla waaw mooy li ma rek ah. Aida yaa ngi koy gis waaw man ñi fiy faj ñëpp Euh, euh, yenn saa yi ma ma mat technicien parce que man sama comme li ma wax nii man dama am nattu nattu bi ma yàlla natt teg am mission bi ma yàlla sant te am na mission boo xam bu la ko yàlla santee euh, boo bëggee di lu nekk nga bëgg ko xool yër rek dangay ngay tardé tardé bi mooy dina am malade yoo xam dina dinañ war a jariñu si yow te duñ si jariñu mais ñoom ñëpp maa ngi dégg seen i kàddu mais ñoom ñëpp it wax dëgg yàlla yéene rek la ñu am xam nga tey Sénégal ñoom képp ku ne mën naa nangam. moom laa la doon wax àggalewu ma nga dagg ma mooy bu fekkoon ba boole ñaari comme dinañ leen mun a classer ci benn bâtiment bu dara xëyee ñu woo leen laaj leen lan ak lan ngeen mën mais problème bu ko defee moom mi ngay wax noonu mu ne man mën naa jàpp Sénégal fànn bi kenn mën naa jàpp nangam kenn mën naa jàpp ne su ko defee ñu gëm leen tamit doy leen leen ba pay jox leen matériel yu ko doy waaye nag égal résultat xam nga tey loolu tubaab noonu lay def tey tubaab tey boo nee mën naa nangam dëkk tubaab yépp nag. dañ naan la dañ lay jox moyen yoo soxla yëpp na la defal mais Sénégal la nga naan mën naa ñu naan noo mënul ak daa def lii daa def nangam gis nga loolu foog foog ñu ngi koy def di polémique wallaay réew mi du avancé mukk waaye nag sëñ xaar dama bëgg am fu ñu taxaw bi ma la fi tuddalee sëriñ si yëpp ku ci nekk da ngaa jaar ci turam waaye léegi bi nga may joxe exemple da nga ne ma kooku ngay wax noonu lan mooy sa problème yaa soxna ay non non wallaay yàlla xam na ni xaw ma ko sax yàlla xam na ni euh, euh, barki alquran tey su ma dajoon ak moom nii nii mënuma leen a kii la. waaye yaa ngi koy dégg. musuma musuma musu man nee naa sànq musuma dégg. Selbé léegi léegi nee nga ma ah Selbé ku baax la. Selbé même bu dul de même bu ko ni seetaanu dina dégg turam xam nga tey dañoo ne Sénégal boo xam ne euh, euh, Sénégal boo xam ne ñoom li ñu bëgg mooy bruit Sénégal bruit lañ toll instant yi àgguguñ Sénégal xam-xam xam nga tey borom xam-xam yëpp dañu leen a rayee jël borom bruit yi favoriser leen. yow li nga yor dëgg la. da ngay def ni may def toog lépp rek nga sellal sa euh, sa yoon te dem parce que tey tey jii man su ma demoon si télé wax ni damay mën a faj boobaa damay dee parce lu tax may dee mooy xoole sama kër dew ma benn tele mi ngi xëy fees bay bay boleke da ngay dem ba am problème mu sax pour parce que ñemewoo dàq benn malade léegi nag loolu mënoo ko am bëgg a lijjanti ñeneen ñi parce que ñeneen kenn ku nekk mu ngi sa ruq di bay sawaar kenn ku nekk na li may mën rek leen rek laa mën si ñoom. moo ñaanal leen suñ borom suturaal leen gën a dolli seen xam-xam gën leen wéral parce que fajkat yi nag dañoo war a bari des na de des na yeneen fajkat yoo xam ne dinañ génnaat yi nga 2023 bii bu ñu si duggee euh, di nga dégg yeneen xeetu fajkat yoo xam ne dinañ ñëw te fajkat yooyu di ñëw ne bu leen leen beddi parce que yàlla mën na jël benn benn benn xale bu ndaw def xale bi ëpp ma xam-xam fopp mën ma fopp gin ma ragal yàlla fopp mais boobaa dañ koy nangul xam nga li ma wax sànq rek ma ne euh, euh, euh, ñun dañoo gaaw a weddi balaa ñun balaa ñu bu bu ñu ñëwee balaa ñu koy xool li mu yor lan la dañ koy weddi ba pare ñun doo do ñun ñun ñun doo doo ko laaj ñun loolu loolu feebaru Sénégal la te lu gën a tax Sénégal dellu ginnaaw loolu bokk na si moo tax kilifa yi nga suñu kilifa diine yi li tax fu mu waxatuñu parce que tey dañoo dem ba wegatuñ leen kilifa diine day wax sax nit def ci internet bi wax ko lu ko neex. kon dëkk bu ñu demee ba réew boo xam ne tey ñi nga xam ne yàlla dénk na leen mënatuñoo wax bu dëkk boobu kon borom xam-xam yi dañuy mën a toog téye seeni njaboot nag di leen yar ak ñi leen déggal am na solo sëñ bi comme tey gis nañ ne daal say kàddu moom xam nañ ne daal ñi nga fi gën a miin euh, euh, nu mu tudd Ablaye Diop xaas miinante woo leen waaye leer na Selbé Ndom nangul nga ko waaye ba tey so ko comme niinoo ko bu baax a baax euh, jërëjëf sëñ bi waaye gis nañ ne dañuy ñëw ndax dañoo war a ñëw man lii laa gën a miin <laughs> waaye kooku nag géejawaay la dëkk soxna Ayda nga dëkk Pikine gii te dëkkoon géejawaay war ngeen a mën a xaritoo mu doon sa jigéen nag asalaamaaleykum euh, sori woo foofu soxna Ayda sa soxna nga xam kon leer na nañ ci dem. man lii mooy sama xarit. moo tax amul euh, heure bu ma nit gisee euh, boo mu fekkul ma yor sumu sama Alxuraan bi laa yor bañ na ko ba moom laay wétru ko mooy sama conseil dëgg tey su mooy Alxuraan bi ma laaj sama soxna soxna Ayda Guèye. soxna Ayda Guèye waaw su ko defee ah mun a ma mun a ma nii ak nii waaw moom rek nag amul keneen dootu dugg loolu moom loolu moom tamit. ah lenn de de xam naa ko ci. vaar a ngi de. Ah, vaar daa gaaw nag. xam naa xam naa li sax ma wax loolu. Ah, baax na ba tey euh, léegi sëñ bi ñu gis ne nag euh, macha allah fekk nañ fi xam-xam ni ko waxee biñ ñëwee ñun dañoo toog xaar ndax nit ñi nekk fi gisuñu sëñ bi ci tele gisuñu ko sëñ bi wut wut bës te li nga yor. Euh, ku ko yor war ngaa mën a wanewu nag li kii wayoon sëriñ saaliw rek li nga yor boo ko yoree war ngaa mën a wanewu gisuñu nga wanewu benn yoon gisuñu la nga génn daanaka sax ñun bi ñuy jot ci yow pour def ak yow émission dañoo bokk ci kër gi rek mm. moo tax tey nga nangul ñu ko comme tey lan moo waral sëñ bi laqatu. waaw xam nga euh, dañoo toll jamono joo xam ne euh, sëñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ni dinañ toll jamono joo xam ne. téye sa diine dina mel na nga ngëpp xalu safara mun a jamono jooj nag seen ngëm ak seen lépp nag na ngeen ko jël dëxañ ko seen dernier bëñ bi ba bu ko dara gis gis nga nit dafa war a xam boromam mooy kan xam yonent bi ko yàlla jox mooy kan xam kilifa yi fi jaar moom mooy ñoom ñooy ñan parce que tey soo waxee ñett nit ñoo lay déglu ñi la féete kaw kilifa yëpp ñu ngi si biir ñi nga maaseel ak ñi suuf kon nag dafay jar ngay sédd nit ñëpp cër chaque jour say jëf nay ëpp say wax soo ko defee li ngay jaay moo lay jaay parce que tey boo ñëwee tey ma faj la maanaam yàlla dogal bokk nga wéree si man soo demee dinañ laaj kii kat tëdd na fukki at mais tey dañ ko yóbbu kër sëñ Xaadim rek mu wér tey yenn saa yi da ngay seen quartier ñooy ñooy bàbbeeku pour daw ñu tëj bunt yi léegi nag loolu amul fenn fooy dem ci àdduna te suma tur boo nee borom yàlla rekk ay buur euh, xam duñ ko euh, xamuñ duñ la wax ni xam xamuñu ma te amul benn kilifa buy ne si Sénégal fii te xamuma amul benn artiste buy ne senegal fii te xamuma tey su ma neexoon tey artistes yi yëpp samay njaboot lañ su ma neexoon chaque jour artiste dem defal ma nangam. waa Thiès. waa Thiès yi ñoom. ñoo ci jëflanteel. Euh, waa Thiès yi ñoom dañ leen ñaanal parce que ñoom it wax dëgg yàlla euh, euh, saa su nekk dañ leen di ñaanal bu baax parce que wax am na fu ñu jëlee seen liggéey am na fu ñu ko te aussi ñu gëm seen bopp lañ man toujours sànq rek loolu laa wax ma ne lu tax si wàllum culture artistes yi comédiens yi lu tax ñoom amul leen fenn fu ñu leen dugal ci wàllum ministère yi te pourtant ñoom nag dañoo am solo lool lool lool lool lool lool lool ci réew mi leen rek laay bëgg ñu si bàyyi xel mooy. bu ñuy joué ñu ñu bañ ci dugal wàllum wàllum julli wàllum diine maanaam bañ ko si bañ ko si fooyee mais ki si mel ni imam Bisaan imam Bisaan kooku euh, ñu bëri xam nañ diine te pour pourtant euh, euh, si joué bu muy joué théâtre si lañ xamee diine. macha allah Pikine la ne ñu koy nuyu moom it bu baax a baax ndax moom loolu muy moom noonu la mel mooy julli moo dirigé kaamir bi nga xam ne moo nekk pikin ku génn àdduna sax da koy woo artiste moom mooy ñëw ak groupe am jàngal la ko kon moom li muy moom noonu la mel. ku si mel na Cheikh Mbacke ñas président Arcos Guédiawaye Guédiawaye Niass Kumba Abdallah. kooku tey euh, euh, tey buy wax nii sax da ngay xam ni ku yàlla may xam-xam la.